mbokku internetu Sénégal Buzz am mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen saa su ne ah, ni ñu koy defee rek di leen daralal ay ndaanaan wala ay kilifa yi nga xamante ni ngi leen bëgg gis fii waaye tey nag ñu daral koo xamante ni Sénégalais xam nañ nu mu mel fii ci Sénégal Buzz di këram di sama frère Pawlish Mbaye ma dalal ko nag fas yéenee waxtaan ak moom waaye laataa loolu frère maa ngi lay nuyu di la déwénati waaw asalaamaaleykum maa dëgg ah mhm. parce que waruma loo parce que fi ma toll la xew naa mi million attirant jantal seex seex déglul seex seex déglul mhm. jantal million attirant du dëgg moo tax mhm. waruma waruma loo tey nag damaa war a yëngal dëkk bi ba dëkk bi yëngatu tuuti après ma wàccaat tuuti parce que foofu laa toll. waaw allez vas ah comme ni ma ko waxee rek sénégalais ñu jógee ci li nga xamante ni moo di weeru koor gi koor gi euh, di weer bu sell suñu borom dimbali ñu ñu woor ko ba génn ci alhamdulilah lan nga ciy wax sénégalais Pawlish. waaw ah ah di ci sant suñu borom bu dee fekkee nañ ko ba tal ko. Mm-hmm. bay dimbali laate nit ñi di ñu dimbali. Mm-hmm. kon sant suñu borom la di baalu ñëpp àq képp kuy musulman chrétien képp ku am bakken dama ne Sénégal képp ku am bakken mi lay baalu àq mhm. parce bakken la baalu ñëpp àq Sénégal a may vie te ñëpp a may seetaan mhm. di baalu ñëpp àq mu weeru mhm. suñu borom baal la da ngay sa téléphone wala nga génn ah. di baalu ñëpp àq mm-hmm. ñëpp maa leen di baalu àq képp kuy sénégalais di eh. baalu képp kuy am bakken eh. weer bi weer bu neex la weeru mbégte la weeru yàlla la. Mhm. weeru suñu borom la. weeru allah yal suñu borom yàgg may ñu koy fekkee waaye Pawlish ñu bëgg cee waxtaan rek ci actualité bi nga xamante moo xew. Mhm. ndax it li xew ci koor ki bëri na lu xew bi ñu waree ci koor gi bëri na ma jël ci benn cas boo xamante ni euh, ma nga xewee ca bitim réew ah, waaye ñu am turu ay sénégalais yu bari yoo xamante ni dañ ko cee dugal moo xew fee ca Dubaay mhm. yaakaar naa ne vidéo yi gis nga ko <laughs> sénégalais yi gis nañ ko mu doon lu ñëpp naqarlu ci ay sénégalais yi nga ne ñoom lañ ko teg seen kaw nga xamante ne moo xew te yow it xam nga Dubaay xam nga la fa xew. lan nga wax sénégalais waaw di di di di di di di di masaw tamay masaw di masaw yaay yi. Mm-hmm. yaay yi lay masaw ba pare. yaay yi masaw ba pare. Mm-hmm. parce que yaay day am kàcce ci doomam. chaque mm-hmm. fois gis soo gisee yaay di gaaw gaañu. du feebar. xol bu tàngalee di rey. naqar. nooy amee sa doom. jur ko fi nga war a juree am am wujju seen kër am ay doomu jiitle am ay doomu baay seen yaay di sëy ci kër gi des fois des fois nga nekk ci bu ñàkk ngay toroxal sa yaay toroxal boo xam ne du neex di tax du neex nooy mënee di def lu bon lu bon baaxul yàlla na suñu borom muta yàlla na ci di masawu yaay bu baax a baax yaay boo amee doom ju góor buy génn wala muy dox yàmba wala muy sàcc yaay ma nga lay masow mm-hmm. boo amee doom bu jigéen bu nekk ci lu bon di dëkkee ci lu bon ma nga lay masow yaay yaay lañu war a ña yaay yaay lañu war a masow mm-hmm. du ma di masow sénégalais di yaay lañuy masow parce que yaay dafa yaay dafa sax ci xol ëmb sa doom juróom-ñeenti weer mm-hmm. sa tàng nekk àllaaxira bi nekk àj àddina sa xale bu ndaw di yàq sa àddina di yàq sa vie ndax affaire yu ñàkk fayda nañ avancé ci nga xam ne tey tey tey damaa bëgg a wax li ma saf tey li ma saf <laughs> uh-huh. gën a xew nag di tëj dëkk bi à part d'aujourd'hui bëgguma toogati benn parce que ramadan jeex na il faut may ni rama Pawlish day ñëw far fos ramadan bu comme yi ah, ah, ah, uh-huh. mm. na ko sénégalais wàcc ah dina ñëw incha allah mais ba tey <clears throat> mais ba tey ci li ma wax rek ah nga masawu yaay yi ci li nga xamante ne xëy na doom yi ñu ngi koy def njaboot gi mais euh, Pawlish uh-huh. li xew Dubaï nga gis xale jigéen yi di ko dund uh-huh. dara feeñul yaa ngi baax. waaw yaa ngi baax mais li xale jigéen ñi di dund Pawlish jamono ji kenn ñemeetul bàyyi sa doom mu tukki. kenn ñemeetul jël sa waaw loolu bon la bon nit bu bonee rek bon nga. Mhm. nit bu bonee rek bon nga bon. Mhm. BG ñëpp a koy rapport ñëpp a koy def. Mhm. rapport ñëpp koy def rapport rapport ñëpp koy def ci àddina. rapport rapport ñëpp koy def. BG BG moom BG la rapport ñëpp koy def ci àddina. rapport déjà ñëpp a koy def. mais ci kaw mu am am ni ñuy rapporté ak ak ak rapport mais mais ku nekk sa plaisir ku nekk ni ngay daanoo. Mm-hmm. ku nekk sa plaisir dafa bëri façon déjà. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ay pub la ñuy plaisir kon ni ñuy plaisir ay pub. Mm-hmm. mais bu ñu pub nañ dem ci cabinet plaisir foofu. am na ñoo xam ay saw bu ñu waree saw nañ dem ci douche di saw foofu. lu bokku ci nit rek di génn ci doomu aadama loo ki saw ne ko dem ci mais à part leneen luy saw plaisir lu nekkul lu nekkul saw gi puub bu ko def ci ku jigéen gi parce que plaisir plaisir la ku nekk ni ngay daan am na ñoo xam dañuy daan naan war sa neem ada fakk pèse beaucoup foog mi ku nekk ni nga amee plaisir déjà hmm. plaisir ku nekk ni nga amee am na ñoo xam dañuy am plaisir am na ñoo xam dañuy def rapport di am plaisir di wali naan wii wii prép prép plaisir la ku nekk ni ngay plaisir déjà am na ñoo xam ne ay plaisir <laughs> dama nag ku nekk ni ngay plaisir man su may plaisir man su may daanu damay làkk français. tu dis quoi parce que allo chérie BSB. arrêtez faire ça chérie arrêtez faire ça putain arrivé bébé je arrivé je suis arrivé ok oh, bébé maintenant arrivé ku nekk da ngay daanu mais daanu ci ay poop na nga ci cabinet <laughs> non bu dee da ngay retaan ma génn parce que bu ma non non bu ma énervé parce que lii dafa séxee parce que affaire rapport la ñuy wax dafa séxee mm-hmm. affaire daan déjà parce que daan dafa sali sax ok xaaral ma naan ndox bala ma énervé naanal naanal naanal bëgguma nga énervé non non parce que sinon dama énervé parce que affaire ndox la ñu affaire sexe la ñu affaire bés la ñu mm-hmm. ok yaa ngi naan ndox mu neex kayaar ndox mu sell noo ko xamee ah yow ah, da nga yaakaar ne yow rek a xam lu baax continuer ñu wax après ñu ñëw ci moom c'est trop intelligent acca ñëwal j'ai comme daan bees non kii yal na la yàlla fay sa xol bees ku nekk ni koy plaisir ku nekk ni ko amee plaisir déjà <laughs> uh-huh. plaisir dafa wuute. Eh. amul sa mbir xarit baal la bu doon def plaisir mu jëla man ay ay reetaan damay def. Hmm. danaan jaay ma mulon ini mulon bi jaay ma ku nekk ak plaisir ni mu lay féetee. Eh. ku nekk ak fa ngay jógee ku nekk ak plaisir fa muy jógee man billaay wallaahi laa la wax billaay wallaahi laa wax billaay wallaahi man soo soo fekkee fu may fu may fu may baisee sa xol day sedd parce que sama plaisir ni attanu ma ko man. Hmm? des fois ma soli lu ne laay def plaisir fu ne la lay am na ñoo xam ne ay doxal la lay génne de ratatatat ratatatat plaisir la xanaa xam nga plaisir ki ko njëkk a dafa génn àddina mbéy bi ko njëkk a dana wàññi dose bi ndax neexaay gi mu neexaay suñu ah. borom wàññi dose plaisir plaisir nit àtt na ko mais fu nekkee da ngay plaisir kenn kenn bañul nga plaisir bu dee ay pub nga def ci plaisir ci ay cabine bi bu dee ay saw nga def ko ci douche bi mais plaisir ci ay pub ci koo gis hmm. man billaahi wallaahi laa la plaisir ku ne ku ku def baiser ah. xanaa xamoo xaj jooyu dafa ñu xaj jooyu ah. ku guy taat bu rafet xonk xëy pecc ñu war léppam xaj boobu boo ko muus gisoon te ci dugal suula far force xaj yooyu man nekkoon dama leen condamné de ku bu dee nit ay gis moroomu nitam di ko violé xaj bu gisee nit xolam gis ko xam ni nit mel ni weeru nit mel bu ko gisee day dugal ko far force la mais Pawlish xaalis war na tax nit sëy ak mala xaalis alalu àdduna am na yoo xam ne plaisir u xaj lañ door am na yoo xam ne plaisir u xaj moo leen neex du ba mais ba la mais dafa ñaaw dafa ñaaw xaj ca xaj ya mhm. nit ca nit ya mhm. muus sa muus ya mhm. petit cola sa petit cola ya mhm. asamaan nag nga nekk xaj donc mooy xaj boobu moo xaj boobu moo caga xaj boobu it xaj boobu amul jëmee nit tuuti <laughs> ndax sulam boobu du sulu xaj de ah. ngeen sulu xaj bi ma toll ah. xonk ciy weex ñu jongal xaj bi ah. man est ce que monté ñu kanamu xaj bu nekk yooyu sulu nit loolu jaaxal na ma de <laughs> xaj la de kalbun la de ah kalbun la kalbun kay xaj kalbun mi ah xale yi man xaay jiita na leen de. Mm. nga ni ñaata la moom ma ñaata la. xayma bi ñaata la. xayma bi dégg nañ bu dee dañuy cabinet sa douze ñu baal ñu ci wax ji. dañ la non non non daw wax ji. non dawuñu ko mais ay kilifa dañ ñuy seetaan kilifa waaw dañ ñuy seetaan moo tax foog ñu won wax ji Papa Sall ni ni mu gën a xew ñi ñi ñi kii. kan ci ñi firi. kon nu mu tudd Oustaz ban. oustaz nu mu tudd sax Iran Iran ndaw gisoo ni mu ak gën a aay ñi ñi ñi firi parce que day jaar ci digg bi ni da ngay jaar du obbi déjà mhm. pour nit ñi xam déjà mhm. ni boo da nga naan ma lis lii la mën la lii la mhm. man muy wax xanaa maa war a daw du dëgg ni seetaan yu ni seetaan dañuy wax dañuy seen doom parce que am na xale yu ndaw cabinet dañu ko cabinet pour ñu yee xale yi déjà parce que Dubaay gi toj te am na ñoo xam ne ñi ngi dem Dubaay liggéey liggéey leen fa yóbbu mais yow yow xam nga Dubaay dem nga. Dubaay ku ci dem Dubaay moment bi dañuy mhm. faral lu borom la fa yóbbu te liggéey la fa tax a jub. Mhm. am na ñoo xam dem pour liggéey. Mhm. bu ñu yàqal ñi nekk foofu ñuy dem Dubaay seen njariñ nekk fa am na ñoo xam ne seen lépp seen àdd dafa lay ne ku fa dem dañ lay vité ci loolu am na ñoo xam ne sax amaana mosuñoo gis naar bay def lu bon déjà. ñëpp bonuñu. ñëpp bonuñu. te lii am Dubaay am na Sénégal am na Mali am na Libye am na Burkina Faso am na fépp xam na waa Dubaay feeñ na rek. mais dëkk bi mu ngi toj. lu bon fépp la am ci àddina. mais bu ñu jël Dubaay def ko naa Dubaay non non. bu ñu jël non non fii fépp lu bon ku baax ku baax la rek soo bonee fu la neex da ngay bon ci àddina. mais nit nu muy génnee ni gémmi mel billaay wallahi barke alxuraanu karim ku ciy def lu bon. da dem sax ba sa ger bu jógee Dubaay doomu envie volonté parce que da ngay foog ne ba volonté ay ay ay pop ngay volonté parce que sa sa xel day dem ci Dubaay maa ngi koy wax sànq nit ñi ñemeetuñu sax doxaan mm. wala takk. non non nit kuy tukki. ñi non ku ciy tukki jàppal ni ba fóonee moment bi da ngay jàpp ni ay pom nga fóon te sa xel day dem ci Dubaay far fosti am na ñoo xam ne xamuñu Dubaay. Mm-hmm. ku ci fóon moment bi ay ay pom nga fóon te sa xel loolu lay jàpp te organi billaay wallaay xamuñ sax fu Dubaay fii xamuñ sax lu bon dèjà nan na nit ñi vigilant mus te nit ñi mus vigilant. Mm-hmm. te ñiy def seen plaisir yi nay na yem ci ay plaisir mm-hmm. ay suucu ay jooy ay ay làqe français ay ay ay baiser ay naan ndox ko yaax ay fóonante affaire yooyu mais pas ay puub ay puub moom ay puub la ci ay dus ba ay saw ay saw la dus ba mais mais mais plaisir tamit ñu waxtaan dëgg de ci ñiy puub xamul sax li ko puubloo yoo xam nga plaisir de bëf plaisir xama naan tudd a ndaa jëlaatal ndoxu kayaar ndox mu sell mi acca mais ba tey rek ah ci li nga xamante ne aussi sénégalais yëpp naqaru nañ ko ah, tey. kii li ko puubloo xamoo sax li ko puubloo nañ egg ci foofu li ko puubloo ba puub ci xamoo sax la pee woon na ma ne ko xaal bi xamoo nit ñi tegi puub ci néegu sëyam te xamul li ko puubloo moo tax rapport yu njëkk ya moo tax ci rapport yi rapport yu njëkk ya eh. amul ay fooy mante xanaa xamoo des nit nit <laughs> des fois nit tëdd nekk puub génn ñu ñu naa xale yi puub nekkati pour pour kër gi puub parce que li ko def ci taat des fois nit jàpp sa jëkkër fooy maat nu nga ko dugalee ci taat ak ay glace glace du glace bu duggee ci taat bu duggee ci xale yi da dañuy jógee ba day day jógee ba publier seen jëkkër yi <laughs> da ngay xanaa naar bi di ko publier sa xamu ko jàppul du xaay bi de <laughs> pl plaisir bopp da lay publier wala xamoo plaisir yow <laughs> man xanaa xamoo man bii laa sama jàpp na sama jus bi barke almanaa koy gunóor paaka ren di sama yaay boo xawoon fu ma nekk xanaa xamoo des fois nit pub ci président xamoo lu ko publoo xanaa des fois xanaa xamoo rapport yu njëkk yi ñoo gën a neex. Mm. rapport yu njëkk ya amul sax ay fooy maan da ngay ñu rek def rapport BG normal sangu set tëdd. am doom yi kësoo am doom yi am doole am doom yi jantar mais ku ci am sa doom billaay wax da ngay gis doom yi di ñi ñi ñi ñi jékki-jékki handicapé. Hmm. ñi gumba ñi seen du nekk nekk seen parce que bi mooy ëpp seen seen sull yi parce que mënuñu jël fooy maat galaas di ko sax ci ci koy góor ni sidit ni sidit mel sidit bi doon tàndar ma du tàndar ni galaas yow waa hmm. ni mel bu ko dugalee ci suul lu muy du wàcc du ko osele ne xeer léegi nag boo jëlee galaas du ko ci ci caata ko góor ko góor ki ba puubul billaay woon non naar yi defuñu dose bi lañ àttan mais nañ jëlee su galaxte di ko dugal taal ak poymante di sulu loolu koo da nga àddi da nga li ko publoo du du du bol la plaisir bi moo ëpp plaisir day publoo des fois nit nekk nekk négocier jékki-jékki la sama papa puub na puubul feebarul sa yaay ko publoo parce que la may def la noo jëlee glace di ko dugal ci taatu ko góor loolu loolu biir mënu ko téye da nga gis te biir bi roccee yaay raw bi mën mm, mm, mm, naan waay bala maa indi fa waat xaama naa xaama naa loolu nit du attanu ci àddina nit nit du attan loolu ay nit du attan fooy mante ci suul nit du ko attan yéen ñiy sëy di leen sëy si yu naturel di def rapport naturel di bàyyi ay fooy mante ak yooyu baaxul bàyyi la waa jógee day rey góor jógee day publoo góor jóge yu ëpp baaxul am na jigéen ñoo xam ne xëy di ba ngoon di nekk ci ndikk di xool li leen ñu leen di téye góor loo téye ko ay pop téewu ko de hmm. galaas ni mu mel galaas. galaas ni mu seddee nga dugg ci taatu góor di ko ëpp. barki bi li li li la puub bi mooy tekkeeku ne faj nga puub kër gi ñu doomi ñëw kii moo puub sama doom ñoo puub faatu moo puub te bàyyi bee puub de mais rus ko wax parce que li def ci taat ba la moo tax góor di ndax day puub def ci taat bi la ga fooy mante ni mu mu fooy mant ni mu amee mant nga dugg ci lu góor ko téewale ko kilim te kilim am ko barki alxuraanu kam moo tax góor jékki-jékki naan sama yaay hmm. rey ko champa parce que plaisir bi la da ngay gis góor ki yow yuxu ci néegam wooy ñu naan lan la ñu parce que boobu plaisir bi kii non ñii naari naari liñ publoo plaisir lay publoo de. du la bon de plaisir bu ëpp day delloo ñëpp. plaisir macha allah baax na xaw ma plaisir yow. muy kàddu leeral yu am solo ah, yoo xamante ne xëy na aussi sénégalais yi dinañ ci jëriñu bu baax a baax a baax mais lan ngay dalalee ñi nga xamante ne aussi parce que ni ñu koy waxee rek foo gis lu bon am na lu baax ñi nga xamante ne ñoo baax ci réew mi di ay jigéen di tukki di daan seen doole. Mhm. lan ngay wax ci ñi nga xamante ne aussi bëgg nañ seen doom parce que jamono ji kenn ñemeetul bàyyi sa doom mu dem. nañu góorgóorlu xam ne ni yaay bu juree doom mooy sonn day ci war su àq yàlla des fois nit te doom di ko def loolu ne di ko julliloo teewul su waree bon day bon nanu sawlu suñu borom yàlla suturaal leen ñi tukki nañu am charge nañu góorgóorlu xam ne am na ñu bon ñu bari ñoo xam ne dañoo bon am na xam dinañ ñëw pour daani seen doole bu mhm. leen bàyyi tukki tukki leen Dubaay dee leen fa dem mhm. mais ku fa dem na nga xam ne lu leen yóbbu ngeen xam ne ay sénégalais yéen mhm. ay jullit ngeen ay nit ku ñuul ngeen bu leen dara këf ci àddina parce que xaalis day jeex àdduna dara taxaw yàlla mayewul dafa abale rek xaalis boo amee cinquante millions amee ko ci leew du baax des fois nit am ay milliards. Mm-hmm. te amee ko ci lew bu tëddee du nelaw des fois nit am téeméer bu amee ke mm-hmm. loo gis barkee ci gën ñeem alal bu kenn ñee kenn ci mm-hmm. àddina parce que xamoon nu nga ko amee mais boo xam ne ko amee ci lu lew eh, eh, di jàllale message suñu papa Tahirou Sarr alalam dakaa lew di mi ngi dimbali doom yi. Mhm. di dimbali képp kuy nit. Mhm. Tahirou Sarr mi ngi dimbali képp ko dëkk Yoff mi ngi dimbali képp boo demee kër Tahirou Sarr da ngay jooy parce que ni la. l'homme social boo demee kër mhm. kenn xamul Tijaan la. kenn xamul Murid la. kenn xamul Laayeen la kenn xamul lan la parce que ñëpp la booleeg di dimbali ci àddina. kon nañu ñaanal suñu borom yàlla suturaal ko may ko jàmm. amiin su papa Tahirou Sarr. musuma koo gis sama àddina nag mais damaa gis lu baax li muy def. xam nga jooy ci tasi Tahirou. bu jooy lu baax. wala mu naan ci tayeeru naanal ci kayaar tayeeru naanal ci kayaar su naani sa xol a papa su ma excuse papa su may wax ci yow damay papa ba su ma may pleurer papa parce que da ngaa gentil c'est comme kon tayeeru nan ko ñaanal yàlla defal ko sutura. Mm-hmm. di di di baalu ñëpp a àq. Mm-hmm. des fois ma déporté a xam ne ni wax dof laay wax du mm. man maa dof mais wax dof bi mooy wax mm. euh, ku ma gis xam ne c'est trop intelligent mm-hmm. li itali naan etu say four yoon noonu sono seema mm. des fois sama kàllaama day dof mais xam naa ne dofuma kuy sangu piscine di nager di dafaati doxee di sangu piscine di bees Mm. kon dof ma di am tuuti xaalis kon dof ma en fait di xamee lu bon ak lu bon ah. di xamee lu baax ak lu bon kon dofu ma des fois sama kàllaama day dof mais ngeen baal ma ak nga xam ni tolluwaay la rek dinaa ci génn incha allah mm. benn su ma jóoboo sama yaay màkk mm. tabax sama kër yore sama benn voiture takk jabar bu rafet après maa ngi kuul ah. après di nga nite eh, mais normal parce que parce que ku ñàkkoon ba commencé am uh-huh. bu commencé dellu ci waxi nit te mu xewi te bëgguma xewi ah. ok sénégalais yëpp gis fan yi passé nga def lu am solo loo xamante ne xëy na ñu bëri dañ ko jàppee comédie mais yow bi nga koy def jàppee woo ko comédie. nga génn gaare sa oto di dox ak sa tànk di def ket ne danga nga bëgg a faj sa copain Ouzin Keita. waaw papa di jàllale message képp kuy euh, citoyen di di am ndimbal. Mhm. sama xarit bi boo ne ko seetaanee dina gaañoo. lu ko dal. dafa feebar dañ ko war a dañ a fay 3 millions 500 la ñu a fay Ouzin kii anisage da nga ko war a def. lanti da ko war a anisage. dañ ko war a. xaama géex partout. ñëwal dañ ko war a anisage. anisage. bu ñu opéré dañ koy opéré kii. anesthésie nga bëgg ga wax. waaw damaa ju anesthésie da nga ko war a <laughs> ne anesthésie ah damaa ngeen jàpp ñu. mais anesthésie la pour ñu la pour nga. bu ñu lay opéré doo yëg métit bi. xam ah, nga xëy na war nañ ko def leneen. opéré am ah, ah, am da nga koy césaré damaa juum. <laughs> Ousseyn da nga koy césaré damaa wuñu césaré da nga koy césaré maa bëgg ngeen jàpp ci Sénégal yi parce que li ko daal dafa métti il faut ñu césaré ko. Uh-huh. anesthésier ko. Uh-huh. césaré te il faut ngeen jàpp ci ah. Uh-huh. dafa sonn affaire yooyu ngeen jàpp ci ah. waaw parce que instant bi je suis fatigué parce que maa ngi gëm tu laaj ngeen ma. tu es fatigué xamatuma wax bilaa wallaay boo waxee ci noonu damay def wala ma saaga. te bëgguma saaga. kon il faut ngeen couper parce que sonn naa xamatuma lu ma war a wax. mais Sénégalais kontaan nañ ci jàpp jàkkaarloo ak yow waaw ku dégg naa waa Kayar jox nañ la ndawlan bu bëri ku kontaan dafay bàyyi kuy ku ah. mer dafay bàyyi kuy jërëjëf mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax ci <laughs> jàkkaarloo ak moom di di di dimbali li may naan rek pour Sénégal xam ko parce que moo tax léegi may def bés normal ma Kayar c'est normal parce que nit bi da lii damay dimbali ndox Kayar parce que nit tax ndox Kayar neex man damaa gaawoon daan mais léegi di bés beaucoup ah sama ah. noonu bi ay cinq minutes léegi ay deux heures de temps parce que Kayar la déjà te en plus euh, góor dama la xam tuuti aussi mm. jigéen bu sa xeex euh, bu sa tax da koy déclenché il faut mm. ngeen xam ni kayax du moroomam alay ca portant bi soit sat bisu bisu bisu bisu alay ca portant bi jërëjëf mbokk yi di kontaan bu baax a baax ci jàkkaaroog di leen jox dig daje ci beneen numéro